waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi ziar si Adama lay siyaare bu baax ñun euh, la Cheikh Noto ñoo toog ak jëmm joo xam ni euh, daa amoon lu mu lu mu seqoon ak Sëñ Salaam bëggoon koo leeral nag moo taxoon ma jël ko envoyé la ko nii incha allah waaw muy si Cheikh Wade Ndiaye Noto bisimilah. dama koy wax. lii ma leen wax nii. man maa suñu asan salaam ñaari tali yi jóge ci kii bi wuti maire yi njaareem maa teg sama tànk ci benn benn tali bi wuti maire ba seen mbooloo toog ñun ma mbooloo mais de sëñ asan salaam a ngi biir ma ne ah sëñ asan salaam mii di nee nañ day wax akum xel kon dinaa wax ak moom su fekkee dana wax akum xel danaa wax ak moom li muy wax moom nag moo di man daal su fekkee bàkkaar a ngi ci man ak fu mu toll ak lu koy dindi nag ma ko wax su néewul ci man nag ma ko wax waaxu ba ba tali bi jëm jëm kër gu mag jóge jóge kii jëm Tuuba dox suñu diggante mu ne ma ee eh, taxawal ma taxaw mën ma wàññikul ma wàññiku mun ma demal ma dem ba yàgg mun ma taxawal wàññikul ñëwal may ñëw may ñëw ba ak ci jéegi tali bi ñëw tiim leen mun ma taxawal ma taxaw mun ma àggal suuf ma àgg suuf mun ma tëddal ma tëdd mun ma jogal ma jóg mun waaw kay waaw kay nii ab taalu bi ni mel ab taalu bi du am bàkkaar ab taalibe du am bàkkaar daal di ne ñoom nekkal e kii kat ko xam ngeen nii ñu ne ma waaw yow bi ngay ñëw man la taxaw lu tax nga taxaw man ko yaa ma demal lu ne ma ko yaa ma mu ne ma fu ma la ne fo fu ma lay jëm fa ma ko ah da nga ma ne demal rek mu wëlbati kuy dem. mu mu mu ni ma ba ma la ne wàññikul nga wàññiku ñëw man nga ñëw man na toogal nga ah, taxawal nga taxaw man la toogal nga toog man la tëddal nga tëdd man la jógal nga jóg gis nga yéen ñii toog lii kenn du ko sant mag mag moo ko sant mu bañ gone rek lañ koy sant te gone amul bàkkaar waaw man de maa def ak moom lii waaw <laughs> ah loolu tawfiix dëgg la man de maa def ak moom lii kenn nettaliwu ko defu ko nettali ma ko ma di ko dégg man maa dem eh. ñee de asan asan salaam nga ca te man ma dégg boobu ni day wax kum xel oh. day tontu waxum xel <laughs> te loolu la ma ci njëkk a dégg mm-hmm. gee mm-hmm. ñi xam nañ ci marché njaareem la toog di ko wax sama yaay kuy dégg mm-hmm. sama yaay doo nga xam kër ca mbooloo mooma moom dong ci sama yaay xam na ko. waaw waaye mbooleem njaareem ku ko ca xam amul. Mm-hmm. mu ñaa ah, ku ko ku ko xam day mm-hmm. war ngaa wax waa këram ñu ñaanal mm-hmm. ndax dafa amoon soxna am ku ca dem mu mu mu mu da mu kii ko jam ko ba mu loola de tax na ñu téye ko nañ ko ñaanal te loolu sama yaay xam ko. dikk na ba wax leen ko est wax leen ko loolu man ba ma koy dégg yàgg na waaye taxul woon ma gis asan taxul woon ma xam ko yàlla xam na ko waaye kera ba ma demee bañ ne ma mbooloo mais moo ca <laughs> ma ne ah kii kii de moom il faut ginnaaw day wax akum xel <laughs> danaa wax ak moom <laughs> hmm? man de man de wax dëgg duma ko weddi moom moom mu wax lii ñaareelu bi nga xam ni itam moom gis naa ko sama mag Adama Lay la tudd. Adama Lay moomu. doomam ju jigéen. la Alaaji Asan Salaan jël jox ko sama baay. sama baay jox ko Adama Lay moo di ñaareelam ba tey. su koy wax Marème Salaan. bis ba nga xamante ne Alaaji Asan eh, eh, eh, Adama Lay am na doom te nekk Ndakaaru usine ñaari tali. jàkkaarloog jàkkaay jiijaan ji ci marché ngelaw fa la këram nekkan mm-hmm. alaaji asan nag daa sori mm-hmm. ma nga ma nga njaareem te booba xam naa eh, mage mm-hmm. mu woo mu yërëm ko ci ñëw bi woo waa jàkka ji ngir ñu dugal ko doom ji ba ñu xëyee toog laax yëpp yi waa jàkka ji ñëw toog bi ñëwee toog ba ñuy waajal tudd mi la alaaji asan soar ni tël taxaw ak mantoom te kenn xamul fu mu jógee. fu mu jógee <laughs> ba mu ñëwee Adama la yow da am doom di ko tudd lu te te waxoo ko ma tudd ko. mu ne ko mu ne ko ñii dañuy samay bokk yoo xam. waa jàkk ji dama bëggoon nga dimbale ma ñu tudd rek yow te buñ de yow nga tudd saw tur. <laughs> saw a ko loolu amu ci. yakkal laax yi jox ko te ñu jël ma doom ji fii ma tudd ko toog ca siis ba ca siis ba mu toog ca ko indee la doom ja mu tudd ko ba mu ko tuddee ba noppi dafa tur rek yem ci ilimaan gi mu hmm. takk kurus bu rëy ci loxo bi mu ne naj ci kurus gi ne ko sa kurus bu rëy gi nga takk fii loo ci jublu ilimaan gi ne teg mu ne ko xanaa sa kurus bu rëy gi de astaxfirullah asim rek nga ciy wet boobu ilimaan ja bàkkaari kese la moo tax mu wax ko ko buy tedd dem sa war a mu ne ko sa kurus gi boo ko tikkiwul li ci wér astaxfirullah asim boo deeyee nii ma ci ne nikke malaayka dina ci ne nikke noonu dugal la jahanama ñuy barke borom Touba. ma la wax wàllu comment la woon dina ko wala allah akbar ma ñamal la loolu alaaji asan alaaji asan salaam waaw Baye Fall lay man maay bàcc lay Baye